asalaamaaleykum gars yi di nuyu ñëpp nekk ci internet yi ak yéen ñi maa ngi nuyu baax a baax a baax. Mhm. waaw di sant suñu coach Vieux Ndiaye en attendant avant tout ba ñuy a ba ñu def leneen. Mhm. ak Seck Ndakaaru ak waa équipe yëpp. bu li yëpp ñoo tax ak sama waa di leen sant bu baax a baax a baax waa quartier sëñ Mansour si ak waa APIX amuñu seen fay di ñëw sumay ñaari waajur ñoom laa waroon jiital sax may ni mu demee la maa leen di sant baax a baax a baax. ayca tey bu ñu doon wax euh, yow la kan loo ñuy wax. man la benn xale bu dëkk Tivaouane Peulh rek. Hmm. nekk ci làmb ji waaw di béy waaram. Hmm. pour man sax defaguma dara xam nga rek ñu ngi si liggéey daal man la guy gi bu ndaw dëkk hmm. mu ndaw dëkk biir Tivaouane Peulh. Euh, lan moo waral tur bi tey avant ñoo dugg ci xuus bu baax a baax. waaw tamit waaw nekk Tivaouane Peulh rek gis gaa yi di bëre ak ñoom guy gi si di kan xam nga rek. waaw tur bi tamit neex ma trop ma ne xaaral ma tuddee sama bopp guy gi. guy gi hmm. tamit dafa law depuis ma nekkee booy ba léegi mun mëntuñ ko changé. Hmm. ci la moo tax ma bàyyi ko nii ba léegi. Hmm, kon guy gi sa mbër la woon walla waaw guy gi sama mbër la woon ma koy supporté bu baax. lu gën a neex moom. guy gi yi naan dof la ci moom. dof-dof lu moo la neex tey ñu wax ne euh, bu ma la doon laaj tey lan moo la dugg ci làmb loo may tontu. Paul Maurice. Paul Maurice bu Tivaouane Peulh. waaw nu mu demee woon. nekk xale topp ko muy ñëw suñu kër tout le ma gis leen bi ñu demee entraînement may dem entraînement di leen seetaan su ma ñëwee entraînement ñu may ber boobu mënaguma amaguma doole ñu may ber ba tey jii nii waaw ma doon lii. Hmm. kon euh, Paul Maurice bu Tivaouane Peulh daal moo tax nga dugg ci làmb. waaw bu baax. Hmm. seen njëkk a toog ba mu la gisee nga bëree ba pare wala ci entraînement yi ba pare amul dara lu mu la wax mu ne la saa waay booy. kaay fii nii ngay entraîné nag war ngaa mën a am dara ci làmb ji mosul am. waaw moom suñu gannaaw bu baax dañuy conseil chaque jour. Hmm. dañuy conseil chaque jour chaque jour bu ñu amee lii nii tey waaw ci la bokk après grand vie ñu wax Seck mu Dakar bi mottali affaire yi. Hmm. waaw di leen sant bu baax nag pour ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax. Hmm. guy gi bu ndaw kañ la dugg ci làmb. waaw man bi ma duggee si làmb xaw na yàgg mais bëriwul woon. damaa nekk di ànd ak gars di ànd ak gars yi di tarbiw di jàng di jàng. 2018 mhm. la am sama premier combat ren. 2018. waaw sa premier combat. waaw yàkkan la woon. maag maag garmi. Hmm. Mhm. sa premier combat nan nga ko dundee woon. waaw sama premier combat metti woon na trop. Hmm. ñu nekk ay booy ñu forcé ñu bëri arène. Hmm. suñ ko ci garab yi liggéey liggéey luy war si ñun daal. toppatoo ñu liggéey ñu bu baax a baax mu xam ne war nañoo mën a génn bëri ji. waaw pare ñun yaakaar duñ ko wën ko quoi pour teel a bëri arène bi. ku ñu gis dinaa ñu teel na teel na mënuñu dañ dem rek pare nañ. waaw ñu ànd ceeg moom nag di liggéey waaw ba dem yàlla may ñu dem. mais sa premier guddi nga toog ñu ne la tey jox nañ la combat sa premier guddi noo ko dundee. xam man man maa yàgg sob si laam. Mm, mm. loolu dama ciy kontaan. Mm. parce que damay bëri ay mbapat di ànd ak gars yi di bëri ci mbapat di bëri ay ponkal. man loolu noonu mënul diis man. Mm-hmm. léegi euh, boobu léegi itam euh, maanaam 2018 nga commencé am premier combat. ba nga demee yaa daan yoo lañ daan. Mm-hmm. Mm-hmm. nu mu fa demee woon. waaw 2018 man maa daanoo sama premier combat. Mm-hmm. léegi nan ko daane tey boo boo ñu doon fàttali. waaw adversaire dañoo xeeb. parce que dañoo tuuti woon trop. bi at bi soufflé ñu lewaatoo ñu miime ma ma dóor ko mu arrière mu ñëwaat. mu dóor ñaari góos. ci laa ko dawee song moo ko songee moo ko cabaxale mu tegg cabaxam mu dóor ko mbot combat bi jeex. Hmm, hmm, hmm. après nga ñëwaat ñibbisiwaat. nga fete sa euh, victoire. nga toogaat ñaata moment ñaata temps nga amaat beneen combat. xam nga ñun duñ fête ay xel lañ. ñun ñii duñu fête victoire parce que ñun loolu waraguñu instant bii nii. xëy na sax gars yi mënuñ ko def te duñ ko yëg mais man moom. pare gu ma defaguma loolu quoi. ok waaw parce que pour man amaguma dara si laaw. pour man bëreeguma sax. waaw ñaata maa ngi si quatre combats. quatre combats sa deuxième combat yaakaar la woon. maa Petit Diouf. Petit Diouf bu. bu kii Mor Fadam. Mor Fadam. waaw combat bi maanaam noo ko jëlee nu mu fa demee woon. waaw comme comba yi rek. Hmm. bu ma ma topp samay course ñoom Seck Ndekaaru Grand Vieux. Hmm, hmm, rek. ñu jëlee combat moom lu ñuy def li si war. ku ñëw école ba sax boo seeraan nga xam ne boo yi carrément caaxaanu ñu ngi entraîné. ok. nga dem préparé wu nga dem yàlla may la ndam wala loo fa jële woon yaa nga jël fa ndam